saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Lac de Guiers penseur bu waalo journal ba di laaj ba xam ndax am na ay chance ngir ne roi des arènes le journal ba xamle mooy wax ay qualité yi ko wutaleeg yenn mbër yi booy wër ku naqaree daan ku naqaree manœuvre ci làmb ji ba egsi ci Lac de Guiers koy jàpp booy wër mbër mu naqaree bëreel ci làmb ji ba egsi ci Lac de Guiers naan nuus jàpp ci moom booy wër mbër mu sérieux ci préparation xam naka la ñuy xeexee kañ la ñuy xeex ba egsi ci Lac de Guiers 2 da nga naan nuus maasaalu ay kombaam ba agsi ci Lac de Guiers naan nuus jàpp ci moom li ni mel nag ñu ngi ko nemmeeku ci moom ca kalaaf ba mu bokkoon ak tafaatin Yékini Junior Issa Pouye ak Zoss boobee ba léegi saa yu Lac de Guiers 2 amee combat nga xam ne ndaanaan am na combat loolee moo waral journal sunu lamb xëy di laajte ba xam Lac de Guiers 2 lan moo ko tere nekk roi des arènes journal ba xam le ne moom Lac de ci boppam la mu jàpp ne moo ko teree nekk roi des arènes bokk na ci roi des arènes a a nekk roi kenn xamul fan nga koy jaar ba tëral ko ci suuf xasee nekk roi des arènes say mbokk dañ naan la bul jëlati ay risque sàmmal sa couronne sàmmal sa carrière te kuy sàmm sa couronne ak sa carrière faaw nga teggi Lac de Guiers 2 journal ba xam le ne li ni mel képp moo tax Lac de mën da nekk roi des arènes ndax gisul roi bu mu bëreel ka gisagul ka mu bëreel guddi yi kay mooy Moussa bu yaraax gannaaw ba ko Garga fete suqi ay laafam le 28 avril 2019 ca Iba ba léegi moom Moussa ngi waat sa dawal mokkul même bu nekkutoon coronavirus it njortoon nanu ne Moussa Ndoye dana def année balance xool fan la jóge fan la jëm xool ñan ñooy dooni adversaire am ak naka lay def ba dellu siwaat ci làmb ji ndax ñàkk ci Garga Mbossé du tee mu defar carrière am defar boppam dellu siwaat ci làmb ji ka warta ci làmb ji ak poste bañ ko dénk mooy Alioune Sarr loolu mooy kàdduy Samba Mangane moom ancien collaborateur RTS bii la mu mooy Alioune Sarr bu démissionné trahison lay doon ci ñun li mu ko ko koo te bu ñu la dénkee nga démissionné mooy trahir nga ña la dénkoon ñun dañoo war a xam-xam mais moom waru fee jóge tey war te démissionné ëllëg dafa war a toog bañ jële ko ji boppu CNG bu dee radiation Sitor Ndour nag kenn bëgg ko ci làmb képp ku bokk ci làmb bokk na ci li ngay ñaawlu Sitor ci làmb la bokk dafa war a dellu siwaat waaye war ta tax kenn gàddu sa micro na Alioune Sarr na fi jóge na fi jóge moom Alioune làmb yëfam la te cëral na ko keneen ka làmb cëral ci saison 2019 2020 bokk na ci Ibou Ndiaye Obali a génn ci ay mbapat boo ca xaymaa la na ci 3 millions 929 la muy critique critique moom Ibou yenn ñeent ya moo ko jël fekk gaskel final ci Dakar daan ko yóbbu francs tase na fekk joos bu Joal foofee ca Jilas daan ko yóbbu ndam la troisième final ba ngóor la daan quatrième ba mu gagné à domicile biir joof yor la daane El Hadj Ndiaye yóbbu 330000 francs journal ba xam le ne moom Ibou Ndiaye ëbbali boo xaymaa loolee lépp day toll ci 3 929 000 francs ak juróom-ñaari nag jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li a fës